sama yoon laa bëgg defaraat quoi. combat bi dafa nekk combat boo xam ne. combat bu am important la suma carrière. si si kanam sama place laa jëlaat si làmb te incha allah le huit. nga xam ne damay jëlaat sama place si làmb. man may xale man maa nekk si yoon. man la làmb gën a yaakaar bu dee bëre maa ko dàq bëre bu dee doole maa ko bu dee fit maa ko dama jël combat bi pour wane suma bopp dama jël combat bi pour bëre moom dama jël combat pour daan ko combat bi maa ko gën a soxla téeméer yoon man combat bi ñaanu ma ko yàlla lu papa am si man damay seeti leneen su dëggalee boppam dañuy xeex dañuy bëre ma daan ko incha allahu rabbi dama xamul la loo yem ma ba jël ma loolu dina dëggal boom rek papa mi ngi wax maa ko gën su dëggalee boppam mu duma ko daan ko incha allah te lamb ji dama deux minutes su dëggalee boppam ñu bëri man ak asalaamaaleykum mbokki internet yi di leen nuyu bu baax di leen ziar di leen bëggee ñu suivi sur Kewel Info du nuyu kilifa diine ak yëpp du nuyu suma sëriñ notre responsable moral bu daatu Moustarchidine wal Moustarchidaat du nuyu kilifa diine yëpp tey nag fii si pikin marché Waranka ci centre commercial bi gannaaw nag wax dëgg yàlla Onde le Fou di ko nuyu au passage ndax gars yi nañ dafa mën a taamu Onde le Fou bëggatul bëree dafa am xaalis et tout tey nag ñu fas waxtaan ak moom li nga xamante ne moom mooy tolluwaayu réew mi ak instant bi combat yi fu mu toll Euh, tey nag euh, ñu ngi fii ci euh, dugg jak sañse ah, di nuy bu baax a baax ki xam te moom mooy galas ndeysaan borom di jaay yëre yu naaj t-shirt yi gis naa ko fa gis naa fi ay lacoste gis naa fi ay jean mën naa habillé góor mën naa habillé jigéen kii de Onde le Fou moom moo ko fi génne wax dëgg yàlla mu jox ma nag ensemble bu doy waar mbokk internet yi xam naa dinaa ko sol incha allah ngeen gis loolu Onde le Fou lañ dalal fas yéen waxtaan ak moom ci làmb dañ koy bàyyi mu ñu dugg ci waxtaan bi Onde maa leen nuyu. waaw Fatma sante yàlla julli ci yonent bi sant suñuy ñaani waajur di ñaanal suma yaay fi mu tëdd yàlla na suufu njar oyof ci kawam di ñaanal suma sëriñ sëriñ góor ja waaw yàlla na fi yàlla na yàgg yàlla na wér waaw suma lim national comme d'habitude Laye Capo Chérif Diène Moussa Yande Abdou Sembène Karbala suma xarit suma doomu ndey Karbala borom Seras Karbala borom une minute dans la marmite bu la yaayee yàpp une minute lay def mu ñor sama yaay ndey mari bu sëñ Fallou sama yaay Aminta Dramé sama yaay Marie ginnaaw raay IPD suma papa suma papa góor gi Diop di nuyu waa Pikine yëpp. di nuyu waa ginnaaw raay yëpp waaw di masawu tamit suñu suñu mbokk yi li leen dal mooy sénégalais yëpp mooy gis nañ ne temps yi dëkk bi tàng na dëkk bi dëgër na waaw ñu ngi masawu ñëpp di la nuyu di xaar say question waaw. Ondu fi may njëkkee ak yow bari ñoo dugg ci actualité bi Ondu lan mooy problème Ondu day nekk ci état day ñëw làmb di accompagner ay mbër mais Ondu lan mooy problème am ne dafa mën a taamu ñi ne Ondu moo bëggatul bëri. non lii sam problème mooy ah daa am lu ma def ci làmb wax ko waxati ko mooy bëri ay combat yoo xam ne nii ay combat der la ay combat jànk la risqué sama vie yëpp sama life yëpp ma bàyyi ko pour benn affaire pour laan làmb kenn mayu ma sens ñi ma bëreel ñëpp képp ku ma mës a bëreel da nga naan kii moom moo mën ond waaw ñëpp yaakaaroon ni dem nañ ba xam ma yaakaar ni mënu ma cee génn quoi kon tey ma demee ba am benn place bu ma taxaw ci làmb dañ ma war a may loxo sax ma yéeg mais waruñoo beese garde bi quoi waaw. mais léegi làmb at fi nga ngay waxee làmb tollatul foofu gis nañ fi léegi may chance dafa xew booy ñu ngi prouver di am doole di kii mais moo tax booy yi ñu proposé ondu bañ te est-ce que làmb léegi daa toll. waaw parce que man damaa nekk tête de file écurie yàlla def ma tête de file ma nekk ak sama xam sa cosaan. waaw loolu dafa leer loolu kenn waxatu ko ma nekk tête de file ay xale nekk suma ginnaaw quoi xale yooyu noonu nekkul dama leen a mën nekkul dara ndax dañ ciy ñëw entraînement am boo yoo xam da ngay ñëw ba ñibbi sax doo leen daan ñu nekk ay der tey ñu am ñoo xam ne ñoom dañoo war a bëreek ñoom te yow boo bëreek ñoom ñoom du ñu bëreek ñooñ te boo yooyu man samay booy kenn nangu leen a may chance te booy da ngay gis benn booy bu def benn nga gis ku jug def dix ñëw may ko chance waaw kon te ñoo amul am aw ma xaalis bu ma leen remettre quoi may leen ko mais war naa dagg ci sama daraja tuuti wala ci sama kii sax delloo leen ko quoi mooy tey boo yooyu man warumaa jël seen i moroom wala ñi nga xam ne ñoom la ñu war a bëreel ma tourné waat tourné naa def ko defaat ko am ci ay ndam mais damaa sonn ci booy yi nag booy yooyu ni ñu ñu war a bëreel man daa am ñoo xam ne ñoom ñoo nekk suma ma nawle ci làmb ma war a bëre ñoom làmb boole ma ak ñoom te bu taxawoon dooni déedéet. kon pareegul pour bëre. non pourquoi pas. parce que ñu ngi lay contacter est-ce que li nga bëgg a wax làmb tollatul foofu il faut qu'on se dise la vérité ndax yow li ngay foog booy yi nga xam te ne révé ñu ay révélation booy yi nga xam te ne ñu ngi prouvé boo xam ne gars yi nañ làmb business la mais on est-ce que pourquoi pas yow mënoo jël booy yi kon ne ko gars yëpp defee mën a bëre mais tant que amoo ñi nga bëgg doo bëre est que loolu tamit le temps passe te tal yaa ngi bëgg a toog loo toog yàggul te le temps passe xale yi ngi bëre sa kaw ñi am ndaw ñu ngi lay romb waaw xam nga xam nga tey le temps passe dañ koy wax koo xam ne nii dafa yaakamti man yaakamti wu ma dara man waa waaw garaawul garaawul agent ngi dem leneen a ngi dem même ñiy ñëw ñu ngi fekk si mais ñun yaakamte wu ñu dara jëluñu suñu bët tey bu fekkoon ne xaalis rek la ñuy wut ci làmb wala bu fekkee palmarès bu rafet la am nañ ko ci làmb am nañ way wu rafet ci làmb ndax tey foo toll boo boo nee Onde le Fou képp kuy suivre làmb xam na ko non man du ma xeewi xalum def laa. boo yaa ngi di di am dam di la xalum def laa at yi ma toog bëreewu ma ko mbër bu ko toogoon bëreewoo ko dootoo ko dëppati micro. barki Serigne Saliou Mbacke at yi toog bëreewu ma ko bu ko Balla Gaye toogoon bëreewoo sax ñu fàtte ko. non xam nga ko sama combat ak Ada Fass ba léegi waatu ma. 6 ans <laughs> non matul 6 ans trois ans la 3 ans la toog naa ay 3 ans bëreewu ma. mais mais mbër moo tax man la daa am loo xam ne nii man maa ko liggéey. daa am loo xam ne man maa ko liggéey man maa ñëw imposé suma bopp man kenn imposé wu ma kenn wax naa la ko man damaa ñëw Pikine fekk ñu naan Ama Balde fils de Fallaye Eumeu Sène surtout Samba Xoyaan Boy Niang fils de De Gaulle ma ñëw imposé Onde le Fou doomu meer dëgër musóor loolu noonu man maa ba pare samay combat man ma wane loolu est-ce que comprendre nga mais nag nekkuma fii pour di rafetal palmarèsu kenn du ma ko def du ma ko def man dara jaralu ma jaay suma ngor comme ni gars yi def ñi ñuy tuddee ay VIP ba yàq làmb ji ma nekkuma ci yooyu man ci but bi ma nekk mooy lépp lu ma am dama ko war a am ci ngor ak ci jom ak ci fulla waa ñi ma war a bëreel fi mu toll nii laay bëreel mënu maa bëreeg ñoom ma toog di xa parce que sonn ma ah, maa ngi lekk maa ngi naan yoreelu ma kenn bor bu ma deewoon duñ taxaw ni kan moo yoreel ond maa ngi sant yàlla suñu borom kon lan moo fi jar fan ma jar daw bay daal dara jaraluma ko. fan yi tamit gis nga làmb fan yi fu mu toll wax dëgg yàlla mbër yu mag yi waroon a bëre ñu gis ne fay saison bi malheureusement ñii dañoo am ay blessure gis nañu Ama Baldé waroon naa bëre Gris Bordeaux Gris Bordeaux am blessure Ama Baldé toog 5 ans bëriwul loolu nan nga ko gisee. waaw ñoom ñoo yàq làmb ji ba pare yàqalaale mbër yu ndaw yi ñi ñu tuddee mbër yu mag yi ñoom ñoo yàq làmb ji ba pare yàqalaale mbër yu ndaw yi fan ma jël lii ay ñetti at ci ginnaaw dañ ko waxoon ba créer suñu association des jeunes lutteurs lii nii waxoon nañ leen ko bu yàgg ni leen gis ngeen ñii ngeen di tuddee VIP yi ñoom ñooy yàq làmb ji. làmb ji ndax ay blessure la ñu non pas blessure. pas blessure ñoom ñëpp dañoo daw peloton ñoom ñëpp dañoo daw peloton parce que li ñu def askan bi soxla ñu taxaw li ñu def saaga askan bi la daan ni taxaw ni ñun kenn jàppalewuñu nekkuñu ci ginnaaw askan bi ñu ngi ci ginnaaw ki nga xam ne moom mooy toroxal askan bi te kiy toroxal askan bi Macky sàll la. moom moo ñëw imposé ci réew mi loo xam ne nii warul am mun di ko ni moom day am ñoom ñu tourné ñàkk ngor àndaat ak moom ci li mu wax. mais dégg nga sortie bi Modou Lo def ak Modou Lo bu Balla Gaye def ñoom leeral nañ. lan lañ leeral li ñu leeral looloo tax nit ñi gën a jéppi làmb làmb nit ñi bañuñu ko ndax bëre bi nit ñi bañuñu ko ndax xeex bi mais dañ koo bañ ndax jikkooy mbër yi man taxaw naa fi ni leen ay deux cent pour cent ak cent pour cent amul li gars di wax gëmuñu ko gëmantewuñu tey loolu noonu yëpp yow yaa ngi koy gis ay ñetti at ci ginnaaw saa bi moom Pikine la parcelle ñoom ñooñu foofa dem nag mi ngi toj ah. foo dem mi ngi toj boo mi ngi toj Pikine nag parcelle ak géejawaay fépp a ngi toj parce que xam nga lan moo tax am na yoo xam ne nii yow da nga naan mbër yu ndaw yi ñoom nee nañ li leen metti mooy mbër yi mbër yi nga xam ne ñoom ñooy génnaat di wax ci ñoom man Onde damay génn wax ci ñoom parce que ñoom li ñu def teguñu ko ci yoon teguñu ko ci dëgg nee nañ kenn jàppalewul leen loolu du dëgg lamb bu doxee askan bi la Fatma Dia. lamb bu doxee jeunesse bi la mais Onde est-ce tamit jarul woon ko li Modou Lo wax ku ci am lu la metti wala bëgg am ay renseignements nga woo ki nga xamante ne moom mooy les concernés ndax bu fekkee Pikine am ma seen mi ngi fa. bu dee géejawaay yow Pikine laa mën a wax quoi ndax dëkk géejawaay dëkk parcelle est-ce que tey mënoo woon jël sa téléphone nga woo Eumeu Sène ne ko grand frère kat dégg lii ak lii ak lii ak laa loolu nu mu demee parce que tamit ñi ngi naan ñoom dégg nañ neen li gars yi di wax ay 33 millions ay 50 millions loolu amul est-ce que jar woon tamit yow en tant que porte de voix ñu gis ne ni ngay clasher sa frère jar woon nga woo Eumeu Sène téléphone wax ak moom na ko frère lii ak lii ak laa dama ni man ci sama wàllu bopp man Onde man ñi ma arrangé rek bëriwul man man maa fi maa fi taxaw ni leen mbër xaw ma benn kër mbër fu mu dëkk du ma woo mbër benn mbër téléphone mbër bu xam fi ma dëkk waxal xaw ma kenn fu mu dëkk mbëru Pikine yëpp xaw ma kenn du ma dem kër kenn mbëru Sénégal yëpp nag laa lay wax parce que man je ne suis pas un tricheur je ne suis pas un lâche man li may may man maa koy ñafeel suma bopp am ko est-ce nit laa nag dinaa soxla ci nit yi tey ma soxlaa ci Fatma dama koy woo ko Fatma ma ak nangam parce que yàlla du wàcc di jox kenn dara mais ci dëgg lépp nañ ko teg ci dëgg deux cent pour cent Pikine bi ñu ngi bëgg a rayante ci seen biir ñu ngi bëgg a mi ngi mi ngi tas Ama Baldé bi avant loolu Ama Baldé mii ñuy tàgg tey nan lañ ko fi defoon Ama Baldé taxaw na open press ñëpp di ko yuuxoo wuu wuu wuu dëju Jules Baldé junior lu ñu fi waxul Ama Baldé amul keroog mal kii Boy Niang bi mu bëreeg bi mu bëreeg kii ba pare bi mu bëreeg Tapha Tine ba pare suñu papa De Gaulle dafa génn def ay révélation yu garaaw ci Pikine tey keneen ak keneen yaa ngi dégg tey yeneen mbër yi génn ñoom di wax ay bi ñu demee pale man ak diw nangam man ak diw nangam waaw yow déggoo li ma wax yooyu yëpp yëg naa ko mais man dama dul dem ci yooyu parce que mën du ma ànd ak nit àndu intérêt Fatma Dia àndu intérêt amul bénéfice non lamb ji yëpp looloo fa am fi mu toll nii gis nga li am ci biir lamb ji Tapha Gueye defu ko woon bi mu ciy toll Yékini defu ko woon Tyson defu ko woon ñooñu bëre nañ ba bàyyi ci dignement yii ñu nekk nii ñoom nekkuñu ci woon yii yëpp waxoon nañ leen ko démb yii yëpp. am nii loolu daf koo commencé tas. waaw Pikine daa musul woon a andu déggoo li ma la wax dañ doon masqué nii nii rek wax ji mooy mooy doog a kalaate nii mais ñoom musu ñoo ànd dëgg musu faa am te man nag daa am ay nit ñoo xam ne dañoo nekk sa man sama écrit yi deux ans teguma fa tànk dem contact xam sa cosaan deux ans teguma fa tànk dem contact yi parce que dama leen a mere chaque jour bu ma leen gisee dama naan leen yéen gëmoo leen seen bopp waaw parce que man du ma topp ci ginnaaw koo xam ne nii yow man bu ma amee bés doo ma gis ci ñoom ñooñ deux cent pour cent wak cent pour cent wak yëpp waaw ba ci lu làmb bu gis nga gis nga àdduna boo waxee ñun la mbër yu ndaw yi mbër yu ndaw yi Balla Gaye li mu daggee licence moom la mbër yu ndaw yi daggee licence kii la daggee licence liñ koy dagg bu avertissement loolu la ñuy dagg mbër mu ndaw bi amul lenn luñ koy luñ koy luñ koy may biir ci biir làmb mayuñu ko mbër mu ndaw mi wala luñ koy xañ te xañuñu ko mbër mu ndaw mi. ok kon yow da nga jàpp ne Pikine comme Ama Baldé miñ doon euh, miñ doon kii tey euh, kii nu na la ko sous-estimé tey Ama Baldé dana yaay. tey wa non li ma la wax dama ne la affaire yi nii rek lay def nii di tourner nii nii nii di tourner Ama bale suba buñ ko saaga waatee bu mu bettaat kenn parce que man man mënu ma comprendre quoi man damay dof parce que li gis nga Coumba Gawlo dafa wax dafa wax benn wax bu am solo dafa woy benn woy bu am solo mu ne àdduna bee dof wala man maa dof mu ni déedéet dofuma sax ci système bi la yow mënoo comprendre que nit ñi quoi ñoom seen intérêt rek dëgg bëgguñu ko bëgguñu dëgg mbër yi gis dëgg war koo wax dem far ci beneen côté bi nga xam ne nii fa la naaféq gi nekk. mais est-ce que faral Macky Sall crime la kenn ku nekk amoo droit faral fu la neex. mais nañ ko wax bu yàgg ni Macky Sall lañ faral mais ñoom xam nañ ni Macky Sall moom moo taal réew mi mbër te waxuñu ko mbër yi la ñuy jiiñ nervi Macky Sall bu bëggoon jàmm laalo wax nii làmb ji ci wàllu boppam day continuer ne sax nii di am làmb ngi nii boobu ba tey ñu ñu ñu téye ko yi lépp ngi am. lan moo tax def ñu Macky Sall moom moo war ta bokk ni day bokk looloo indi problème mu Sénégal. mais tamit seen yoon mi ngi ci bien vrai que nag jeunesse bi mere nañ leen parce que kon li ma waxoon rek nee naa leen far du foosu kenn ku nekk am na foo far mais est tamit loolu jaran tamit yéen euh, xaalis kon ni ko Moodu waxee est ce que tamit yéen li ngeen dégg affaire u xaalis mais tamit Ondu il faut qu'on se dise la vérité affaire xaalis bi ñuy wax ñu gis ne mi ngi commencé xam nga di kii ci mbëri te yéen gis nañ ni ngeen meloon est ce que loolu tamit jar na ko waa waaw jaral na leen ko ñoom jaral na leen ko parce que ñoom ci seen wàllu bopp nañoo dañoo waroon a xam ne ci lu ndaw lañ déparé mais dañuy xas mbër yu ndaw yi fu ñu wàllu tool fu ñu toll boo waxee ñu ne mbër yu ndaw yi nañ jéem a liggéey ba am li ñu am Fatma Dia gi lépp loo gis mu tuuti mooy alimenté lu ngande sa caméra bii ma tiim nii ba tax adduna bi yëpp di ma seetaan nii caméra bi lu ndaw am na loo xam ne boo ko ci jëlee woon kenn dootu ko seetaana seetaanati tey dangay gis caaya caaya li muy ngande ngande benn bouton bu ndaw moo ko téye ak fermeture ak gaño te caaya day mat 700 centimètres mais bu bouton bu ndaw boobu bu ci caaya de bu deñee ci caaya caaya dootul dara mais yow nga bëgg a sous-estimer mbër yu ndaw yi naan mbër yu ndaw yi na ñu liggéey ba am lu ñu am ñun kenn jàppale ñu kenn kenn nangam nit ku xelu sax du wax loolu ñaareel ba ñoom buñ nee topp ñu askan wi askan wi li ñu nekk askan wi defuñu leen ko ñoom ñoo ko def seen bopp loolu c'est pas vrai. mais ñoom nee jeunesse leen def li ñu ñu mel. non non taxaw nañ ni ñoom ñoo ñafe ba yóbbu seen bopp fi ñu yóbbu seen bopp. est-ce waxuñu ni comme ñoom yéen kon ñoom fi yéen fi ngeen toll ñoom bañ fa tolloo dañoo ñafe ba am li ñu am. ñëppay àdduna ñëppay ñafe mais wërsëg yemul. da ngay nekk ak nit ci écrit ngeen di bëre yow biir géejawaay boobu xamoon nga fa muuma bu géejawaay muuma nattoo ko jàpp mais bu dul woon nattu doo tudd benn mbëru géejawaay est-ce que loolu moom moo ko teg boppam parcel ñaata mbër nga fa den gis yoo xam ne Modou Lo mënu leen a daan Pikine noonu Eumeu Sène noonu keneen noonu yàlla moom mooy jël li ko neex moom am na yoo xam ne du yaafuus gis nga àdduna bi fii ñun ñii ñëpp live bi dañoo trahir coow li moo bari rek mais ku nekk yaakaaroon nga ni âge bii nga am nii balaa nga kaa am di nga nekk ci beneen level mais yàlla moom mooy bind moom nu ko neexee mais nit xam nga lan moo am solo ci moom nekkul alal bi mais nit gore moom moo am solo ci moom Ousmane Sonko dafa gore ndax tey nekkoon na impôt et domaine impôt et domaine ay milliards ñoo fay dugg mais Ousmane Sonko bu goree di woon tey ji coow li yëpp du ko ci topp. mais wax gis na yi ngay def ñu ne euh, la fait que lu mu jubóowul kon li nga wax sànq waa Pikine dëgguwuñu le fait que lu mu lu mu kiiwoo jubóowut ak ñoom moo tax fu mu toll day sànni gaa yi xeer da leen di sànni xeer mais ond lan mooy problème ak waa Pikine. non man xuloo ma kenn ñoom ñëpp ku ma ci daje damay jo nice ñoom ñëpp. mais am na loo leen nekk kenn ko ci koo du koo gisul doo koy dencalee dara man du ma leen gis man damay toog at du ma gis kenn man du ma dem fenn man mu jugee anta man maa la ko wax man aw ma mbër man du ma dem fenn. lan moo tax ñuy dem fële ba ñuy dem fan. problème xaalis bi dama ne la problème mu palais bu njëkk ba. loolu seen but la ñoom man nee naa la am na ñoo xam ne man arrangé wu ma leen gis nga Ousmane Sonko ni muy dundee nii daa am ñoo xam ne ni moom arrangé wu leen Ousmane Sonko bu fekkoon ni dafa arrangé gars yi lii ñu koy teg nii duñ ko ko teg. da ngay déranger. non man damay déranger man maa maa la gën a xam loolu man maa la gën a xam ni damay déranger déranger bi nag nekkul alal nekkul ci dara mais fu dëgg jotee dañ koy dóor ci digg bi. man dëgg bañu ma ko ma ci mere man xam lan laay bañ ku ma jéppi am na sam benn booy daf ma woo keroog ma ñëw taxaw di waxtaan ak moom mu ni ma diw ba ma koy seetaan ma ne ko waaw mu ni ma dama koy xeeb ma ne ko lu tax mu ni ma ni mu mel ak ni muy waxee man na may sax ruus bu ma ko dee seetaan dama naan nekkul kii nii moom moo taxaw man nag jomb naa loolu quoi nit di la seetaan xam ni fenkat dëgg mooy wax wala ki muy kii kii di wax nii li muy wax moom gëmu ci dara man bugguma loolu. am pagaay nitu média am pagaay mais yàq nañ làmb ji nañ ko nañ ko wax te dee am na benn booy bébé ama keroog bi ñu nekkee saal mu ni ma sam benn copain dafa waroon a bëre dimanche bii di ñëw mais daf doon wax bu bëree ba pare ci lay jëndal yaayam xaru tabaski xam nga ni fii ba tabaski làmb dootul am ñooñ seen waa kër bu fekkee ni ci reliquat booy bi lañ yaakaar pour am xar fan lañ jëm fan lañ jëm ndax lan topp benn lu lu neex ay quelques personnes ay ay ay ñaari nit ñetti nit mais dëkk bi dañoo dañ xam nga Sénégal man daal man man Fatma man mënu ma comprendre quoi. bërki gine gine ginnaaw raay fii xam nga événement yi ñaata nit a fi dee quatre personnes a dee fii ginnaaw raay quatre benn booy bi benn mbër la fii la war fii la dëkk fii ci marché warank bi nii bi ci suuf am suñu benn gaayan boo xam ne nii maa ngi koy nuyu au passage momo momo doomu dëkk bi ak ak ngañ géy ngañ demba géy bu ginnaaw raay fii ñoo bokk benn koñ ak Cheikh Gueye ñooñ ñoo ñëpp nekk ñu ngi leen di masaw ay doomu ginnaaw lañ ñu jàpp leen ci ay problème mu Adamo moom moo wax ni ah, Momo doomu dëkk bi dafa dafa def ay cocktail molotov pour sànni ko ci teer bi ay waxi Adamo génn na justifié wu ba ci saa def vidéo ni man maa ngi nii ci com ci complexe bi liñ may jiiñ nekkul man dafa ñibbi si këram maa woo sam benn copain ni ko Karbala maa ko woo téléphone ni ko Momo doomu dëkk bi nee nañ dañ kaa jàpp nangam ak nangam mu ma ni ma Momo fi la reere Momo daa ñibbi këram ñu jàpp ko ndax ay waxi kan Adamo Koura Macky ñu ngi naan Koura Macky Koura Macky dem ba ensemble toog fa naan ay ci looleen ne est-ce que yéen a ngi ci jàmm ci looleen ne ñun loolu lañ ko fa tegee nañ waxante dëgg rek tey da ngay gis ah Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi day taxaw di saaga nday nit ñi di wax lu ko neex kenn du ko jàpp yi ñu jàppee waa kër Ousmane Sonko yi ci bëri waa kër Macky Sall yaa ngi koy def te duñ leen jàpp léegi mbëri tourné gis loolu muy dëgg ñu dem fii dem dem dem féetewu ci rangé wu ci côté be mais askan bi saaga leen te askan bi buñ leen di saaga man wax naa leen ko ba sonn duñ ci tudd mbër waruñu cee tudd mbër yëpp parce que mbër yëpp meluñu noonu bu fekkoon ne tey dañ ko dóor ci digg bi li war a am am ñun dañuy rangé wu ci seen kanam mais ñoom mbër yu mag yooyu kuñ ci tane sax duñ la dimbale chaque jour nga dégg mbër mu ndaw mu ñuy ketal mais pourquoi ñu bëgg a noppiloo nit ñi Zarko bërki démb dégg naa ko muy wax lan la Zarko di wax Zarko Balla Gaye nee na gis na ko ci TikTok bi moom moo tax muy wax rek mu gën a gonflé wu génn di wax ni da ngay gëm sa bopp. waaw gëmul boppam kay ay waxi bala Gaye li Balla Gaye ni seetaan naa Zarko ci TikTok bi mu wax wax ju am solo nangam ak nangam Zarko mel ne. maa ko jëli mu waaw mu mel ni ku ñu pikiir. Eh, mais Zarko li nga xamante ne moom la sentir. waaw parce que demul woon mais ñoom lépp lu ñu am seen chance mais lan la ci xasee ñeneen ñi lan moo ci lan la ci xasee ñeneen ñi lan la ci Zarko di xasee mais ku nekk dama ne la ku nekk am nga droit féete far fi nga féete mais làmb ji ñun ñëpp ko bokk ñun ñëpp ñoo ko bokk te dañ koo war a teg ci yoon dóor ko ci yoon fii ba élection yi di ñëw sax buñ la nee làmb du am gëm ko fii waaw yow gars yi dañoo nawloo nitu làmb. président CNG bi loolu la xam Bira Sène ba faalewul sax mbëri day dagg mbër ba mu des dix mille francs mbër mu ñu fay quatre quatre cent mille nga war a bëri six mois six mois nga topp ko di ko wayaan deux cent mille yi bu ñu la koy jox muy jeex nga ñëw bëre ba pare ñu yëkkati dix mille francs jox la ba pare ngeen i kenn du wax moom la maire bi waxoon daal ni xale yi muñ leen bu leen juloon yërëm leen Macky Sall yow nag dangaa mën a tëj dal tëj rek tëjal ñi fi nekk ñëpp ba mu des fi maag yow ñu samp ma ma gañe la looloo fi des am na solo ah. sama yoon laa bëgg defaraat quoi. combat bi dafa nekk combat boo xam ne. combat bu am important la suma carrière. ci si kanam sama place laa jëlaat ci làmb te incha allah le huit. nga xam ne dama jëlaat sama place ci làmb. man may xale man maa nekk ci yoon. man la làmb gën a yaakaar bu dee bëre maa ko dàq bëre bu dee doole maa ko bu dee fit maa ko dama jël combat bi pour wane suma bopp dama jël combat bi moom dama jël combat pour daan ko bi maa ko gën a soxla téeméer yoon man combat bi ñaanu ma ko yàlla lu papa am si man damay seeti leneen su dëggalee boppam dañuy xeex dañuy bëre ma daan ko incha allahu rabbi dama xamul ne loo ma ma ba jël ma loolu dina dëggal boppam rek waaye mi ngi wax maa ko gën a su dëggalee boppam mu duma ko daan ko incha allah te làmb ju dama deux minutes su boppam ñu bëri man ak